waaw d'abord sant yàlla jullu ci yant bi san suma ñaari waajur maa ngi nuyu suma sëriñ sëñ Asek borom ndigal maa ngi ñaan senegal yàlla na fi jàmm yàgg ak wér ñaanal sama xalifa général maam Cheikh Ahmed Tidiane yàlla na ko yàlla yóbbu sama xalifa général Baye Abdourahim Seck yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana di nuyu di nuyu Baye Seck xalifa général Thiénaba yàlla na yàlla woo fa yen bi di jaale waa Layeen gi yëpp yàlla na ko yàlla yóbbu àjjana di jaale waa Louga waa Sàlleen di leen ñaanal yàlla ñi génn ci Covid bi yëpp yàlla yóbbu leen àjjana yàlla mun na ko yàlla na yàlla def yàlla na yàlla def nawetu jàmm ak salaam ndoxu jàmm ak salaam ñu passé ko ci jàmm ñi nga xam ni vraiment mbënd mi sonal na leen yàlla na yàlla suturaal walu leen bañ jóge ci ndox meeg jàmm ak salaam parce que kenn ku nekk xam ne nawet ak nuyu sunu grand Lirou jaan bi ñu fekki suuf ak suma frère Alioune Seye moom kenn ku ne xam ne li muy dox ci géejaay moom lañ koy ñaanal rek moom sëy moom kenn la quoi ci Guédiawaye vraiment moom ñu ci waxaat quoi buñ nee sëy rek jeex na ëmb na lépp nuyu sunu rakk Fils de Balla boo ko nuyoo rek nuyu nga booy yëpp ku ci mel ni Baro Macha xam nga euh, Maji Maji booy yi ñun ñëpp benn lañ buñ dajee da ngay yaakaar ni ñoo bokk ndey ak bàyyi buñ séparé ko kenn ku nekk sa kone sa coin da nga naan ñii sequñu dara mais buñ dajaloo ko gis nga ko ñoo bokk ndey ak li mooy Guédiawaye nag bu guy gi teewee man maay cool yi man moom maay cool moo tax bi nga wàccee gis nañ gars yi dar la. waaw bu ma co teewee rek ñëpp teew nañ su ma teewee ñëpp teew nañ maa nekk ci ginnaaw ñëpp nekk sama ginnaaw muy Balla Gaye muy Sa Thiès muy Lac de mii tey amul lu ma ko dul yàq mais ñun ñëpp benn lañu. pour gars yi rek am benn visage boo xam ni xam ne ñun amuñu problème ku dégg sama intervenir au passage di ko nuyu sama grand saaka yor barki démb nga xam ne amuñu problème mais xamul ñooy dugg ci ay détails yoo xam ne nii naan guy geeg Lac de wala guy geeg Balla Gaye wala guy geeg Alioune Seye amul. billahi ñoo bokk ndey ak baay ñoo bokk ndey ak baay gars yi ñooy topp di wax rek gis nga suñu géewaay gi ku ci dugg nan ñu ko séparé wu yow la yàlla séparé léegi ba ñu ànd kenn ñu ñoo fi njëkkee cent pour cent créé match kere yu kenn xamul nit ñi duñu toppandoo mais duñ dem ba tey ni ay bojo bojo xawma nuñ ko waxee jóge fee ñëw di ñu rax di ñu indil ay na ñu bàyyi ñu kon suñu vie ni ñu doon def ñu ñoo bokkoon yàlla noppi nopp yàlla yàlla amul matati goo xam ne ci ñu jégal ma ci kàddu gi dina bàyyi ba guy gi juddu mu naan ko sa làmb ji war a ñëw yàgg rek rek suba laa ci xam dara pare na bam ko judd ba ma juddoo la bind lépp mais doomu aadama bu gisoon li ko yàlla dencal te ñëwagul du xëccoo doomu aadama bu gisoon li xam ne la ko yàlla dencal te ñëwagul du xëccoo mais ñu bëri comprendre ñu dañuy gis guy gi tey génn rek yor na benn oto wala guy génn bari na daan na warul daan noonoo yàlla moo ko bind. tey Alioune Seye mii tey nii nii nii mii bëri na ak moom mbapat cinq secondes la ma daan taxañ ma teg fële. moo la daan te doo toog fenn mu ne daan naa guy gi te ba ma ko fekk boobu champion la mais nangu damaa nangul ne man champion la man it man nangul ko ko nit noonu lay mel moo tax anamu lim doon tegalay jafe yàlla fay ko ci benn tàkkusaan lan moo gën a neex jël bi mu daan barki démb champion nga dóor ko mu ni këpp julli tàkkusaan yàlla am na loo ne boo ko boo mu muñee rek mu fekk si la ci soo fekkee da ngaa diit diitlu rek yàlla indil la leneen nañ jàngat ci yenn détails ñun amuñu benn problème àdduna léeg-léeg nga gis ñi ñuy ñëw sax ne Balla Gaye tax ñëwul ci ngénte li wala Gouye Gui tax ñëwul ci ngénte la Lac de Guiers doon tudd ngéntewul de champion la porteur de voix la jël na mesure barrière comme ni ko niñ jëlee bu doon ngénte tey fii waa biir gër reses ñoo ko fi loolu mënul nekk nañ ko xam ni ñuy jëlee mesure barrière ñun loolu la ñuy njëkkee kon comme ñun porte-voix lañ duñ topp rek télé di wax dañ koy njëkkee lat ñi ñëw sax da koo jaaxal da gis mu daw dugg làqu soo waxee mun la booy mesure barrière kon ngéntewul ñu jàpp ni xam ne tey champion yu teewul lat waxu ko ci kenn bi maanaam bu la ko waxee dala ko wax rek ne am naa doom damay tudd mais néew la nga ñëw pour mu leer ci image ñiy gis parce que damay dégg yéen rumeur kii diw ñëwul diw ñëwul loolu la ngéntewul day tudd te dafa jël mesure barrière yi comme niñ koy jëlee tey bu fi nit ñi ñëpp ñëwoon brigade su moo koy tas te it ñu waxante dëgg mënu nekk porteur de voix di ñu ni moom na wax ci mbas mi tey muy dajal ay nit kon dañaa la dëgg mi est que nit la noonu la demee nag ko ñaanal yàlla doom ji barkeel mu dund ba fekk njariñam yàlla mënu ko yàlla ko yàlla la suma xarit la dama ko yekk lu mel ni xamee lu mel ni xamee laa ko yekk tey takk gi tey man waxtaan naa ak Alioune Seye léegi ko bu génnee ci combat bi dina takk force ci di walla ca daal léegi dama ko jéem indil benn anecdote moom damaa jékki-jékki rek kere takk kër gi fees del kër gi keroog la ëpp lii keroog la ëpp keroog la ëpp lii jom bekaay boobu dafa guy gi laata gerte fu muy takkee wala ko demal ci kër gi rek <laughs> mais loolu tey moo indi lii dama xëy xëy rek mu fippu mais rek mu nit ku baax mu nit ko am dafa simple xam naa ko bu baax euh, du wax ci ginaaw nit du wax ci ginnaaw ni te nit la koo xam ni man ñeme naa ko man su ma ñemee ni rek ñeme naa la su ma la ñeme la du wax ci yow mais suma ma xarit la te amoon na engagement ci combat bi sama combat bi engagement bu bu doy waar xam naa nas xam na ñuy liggéey maak su may rakk yëpp am na xam kenn du wax ci tere nous sommes nous daanu ñu daal benn leen na ñu ñaanal yàlla géewaay te incha allah bu neexee yàlla ren géewaay c'est le meilleur c'est le meilleur ci làmb ji guy gi ma woon mooy dajalewaat booy sama rak yi nekk sama ginnaaw ñu organiser suñuy mas di dajaloo foo ñu gis ñu bokk ànd di dóorandoo di bàyyandoo te incha allah loolu béyantoo di ngeen ko gis soo yàlla. jaajëfal kaddi rafet. ok di sant yàlla rek wax dëgg yàlla moom suma xarit la suma lonko la sama doomu ndey la lépp loo xam ne ci man la ko wax rek ci moom la nekk di ñaanal bébé bi sunu borom may ko gudd fan ak wér ba lépp loo xamante ni ay waajuram bëgg nañ ko ci moom rek sunu borom mottali ko. yàlla na sut turandoom am fan na Seydina Mohamed. fii ñu gis ni Lac de bi ñu waxee ñëpp la gërëm ñooy laaj tey jii ku mel ni ah, sa mbokk Lac de xew la nga teew tey bés boobu nan la mel ci yow. fii moom ku fi taw rek wax dëgg yàlla teewu nga fi teew teewu bokk dëkk géejawaay comme ñun ñoo bokk géejawaay bokk loo xam ne mënuñu ko séddoo moom seen normal nit bu ay xew jàmm ñu teewal ko bu xee xew xew xew leneen tamit ñu teewal ko comme lii la yàlla namm muy bisu mbégte géejawaay yëpp war a jóg. ñëw xam nga ñëw ci bisu Lac de bi taxawu ko wan ne ko ñun suñu doomu ndey nga mais sant yàlla daal comme suñu borom ñu la ko bëggee sant yàlla waaw. ñu ci kontaan bu baax a baax daal di ñaanal bébé bi sunu borom may ko wér gu ak gudd fan dimbali ko taxawu ay ay waajuram ci barke Seydina Mohamed.